auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala nabil karim allahuma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad mbokk yi boo leen déggee salaatu boobu xam ne kon jóge nañu Dakar ginnaaw bi nga xam ne formalité administrative yooyu yëpp def nañ ko waajal nañ leen am ngeen seen passeport am ngeen seen visa dugg ngeen avion dem ngeen directement Madina loolu nag ay taxawaay yu am solo loo xam ne la suñu kilifa yu baax yi yàlla dogaloon ñu am expérience ci aj nekk ci discuter suñu ay autorité ba Sénégal bëri na ci seen i ay vol yoo xam ne day wàcc Madina mooy vol direct yi nga xam ne ñuy jël Flynas moom la am kon wàcc nañu Madina euh, Madina bu ñu koy wax dañuy dugg rek ci juróomi mbir yoo xam ne fàttali lay doon ci ki nga xam ne wàcc na Madina mbokk yi Madina ki fa tëdd tëddaayam bu rafet boobu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi fa tëdd 632 ginnaaw bi mu ganee àdduna 570. 610 suñu borom indil ko alxuraan ñu révélé ko ko 620 ci la def rañaanam googu indil ñu xéewal gi nga xam ne euh, amul benn jullit boo xam ne dina na am keneen ku nekk ci beneen diine te du am loo xam ne du ko jël ci yow. ni ñu ko sëriñ bi indilee ci wax ñu ne rek ne moom diine moom du lislaam Euh, gërëmuñ ko fa yàlla diinu si waa islaamihi laa yoxmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu cheikhul xadim yàlla nañ ko suñu borom fayal kon mbokk yi moom ñoom bëgg gi ñu bëggoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañu suñu borom dimbalee ba maanaam ñi nga xam ne dañoo askanoo ci réewam ñu am ay possibilité di am wàcc goo xam ne dañ koy wàcc madina directement mbokk yi madina euh, la fa nekk euh, ci li ñu junj léegi rek ginnaaw bi nga xam ne ñëw nañu 620 nga xam ne def na rañaanam googu jóge makkatal mukarama dem beti lay béti maqdis ngir euh, suñu borom woo gim ko fa woo muy isra wal mihraj 622 ci la suñu borom dogal mu jóge màkk def fukki fan ak benn ànd ak kashwa muy gileem googu nga xam ne mustata googu moom ñëw madina dugg fa en 622 bi mu duggee madina en gis ngeen ne ci la ñu sanc jumaa ju mag gooju nga xam ne mooy xubba nga xam ne yow mi nga xam ne yow yaa ngi dem ak jàppal ne bërëb boobu boo leen fa demee ci masaraat xamal ne boo fa duggee am yéene sellal ko def fa ñaari rakk xamal ne am nga yoolu ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy umra kon diggante boobu nga xam ne yàlla moo ci def ay mbiram yow mi nga xam ne jóge nga senegal wàcc nga Madina xamal ne wàcc nga ci dëkk boo xam ne bépp julli boo fa def xamal ne am nga junni yool junni julli masala la ko ëpp mooy màkkara nga mën a julli am téeméeri julli julli kon nag foofu la la fa war mooy ay bërëbu noppaliku la banaa balaa ngay dugg ci aj gi ay bërëb la yoo xam ne yaa ngi dem ci masjid Nabawi euh, ni ñu ko organisé léegi ci la nga xam ne moo fa mujj ndax xaw ngeen ne Covid bi moo fa jaar mooy léegi da nga doon jóg rek heure bu la neex dem rawda foofu nga xam ne mbokk yi képp koo xam ne tëddaayam bu rafet bi foofu nga xam ne fa la tëdd ak bërëb ba nga xam ne fa la taxawoon di xutba mbokk yi képp koo xam ne taxaw nga fa def fa sa ñaari rakk xamal ne yaa ngi place boo xam ne ci place yi ci àjjana la bokk kon maj Masjidu Nabawi ñëw nga dugg nga wax nga asalaamu aleyka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu mbokk yi tamit noonu nga koy defee boo ñëwee nga tol dandu tuuti rek nga nuyuwaat Seydina Aboubacar asalaamu aleyka ndax dend gi mu dend ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga wax aleyka ya Aboubacar Sadiq noonu ngay defee rek boo puusaatee tuuti rek ñëw nag ci alfaruq ko asalaamu aleyka wa taala wa barakatu ya Omar alfaruq mbokk yi loolu mooy ziyaara bi nga xam ne moom nga de war a def ci masjidu nabawi labbayk Allah